ngeen ñi topp ci site web bi www.nabitv 92 point com seen émission bi nga xam ni moom la tuddee yóbbalu lislaam ñu koy def ayu bés bu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala kori gi nga xam ni ci la jóge ginnaaw bi ñuy wooree chehru ramadan al mubarak ñaan yàlla liñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu def ko suñuy téere jëf yàlla may ñu fekk ay ramadaan yu bari tal ko fekkee ko waaye woor jaamu yàlla suñu kemtalaayu kàttan macha allah ñu ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla nañu yàlla boole baal yu mel ni na suñu waxtaanu tey di suñu yóbbalu lislaam dafa ñëw ci point yi ñuy bëgg a tudd bi ci jiitu moom mooy a tawba te moom mooy tuub ñaareel bi mooy asabru moom mooy muñ ñetteel bi mooy asidqu mooy dëggu euh, ñenteel bi mooy almuraqaba fuglu bàyyi sa xel ci ne sa borom subhaanahu wa taala mu ngi lay bàyyi xel saa su nekk waaye ñu mujjee ci point bi ñuy wax at taqwa te mooy ragal borom bi subhaanahu wa taala bokk yi ñu bokk yàlla bokk seydina muhammadin sallallahu alayhi wa nga xam ni borom bi subhaanahu wa daf ko yónni mu nekk rahmatan lil aalamin yërmande ñeel jaam yi dañul nag bëgg bum ñu bëgg ak sopp bum ñu sopp ak yéene bum ñu yéene texe àdduna ak alaxira moo tax dañul dañu fàttali dañu fàttali saa su nekk ñu xam ni jóge nañ ci weeru koor waaye jaamu yàlla jeexul jaamu yàlla jeexul julli yi jeexuñu saraxe yi jeexuñu def lu baax jeexul su ko defee nag la abubakar siddiq radiallahu anhu waxoon bi nga xam ni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna jullit yi jaxasoo ñi jaaxle ñi di jooy naan fan lañ jëm mu def discours am bu am solo boobu nga xam ni képp koo xam ni kilifa nga discours boobu nga war di waxee saa su nekk su fekkee xew-xewu naqar am na mu ne yéen jullit yi man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammad qad maat waaye wa man kaana yacbudu allaha fa inna allaha xayyun laa yamuut mu ni képp koo xam ne doon na jaamu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billah sayidina muhammad kenn du ko jaamu waaye waxin la mu ni képp koo xam ni doon nga jaamu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis ni ki tey na nga xam ni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuxu na ci boroomam génn na àdduna waaye képp koo xam ni yaa ngi doon jaamu yàlla na nga xam ni fa inna allaha yàlla xayyun kuy dund la laa yamutu du moom la ñuy wax rek man kaana yacbudu ramadan fa inna ramadana xad faata waaw dem na te du ñëw lu dul beneen at yàlla nañ fekk bu ñu fekkee yàlla nañ ko tal waaye képp koo xam ne ramadaan nga doon jaamu na nga xam ne weeru koor dem na waaw képp ku doon jaamu yàlla nag nañu xam ni yàlla moom mu ngi fi kon su ko defee lañ doon jaamu ramadaan ñu continuer di ko jaamu weeru koor li ci nekk ci ay xéewal dafa bari bu ñu yàlla mayee sens nag xéewal yooyu ñu koy def di julli heure di teel a jóg fajar bu weeru koor jeexee rek ñu ne déedéet nañ bàyyi jóg julli fajar bi nañu tëdd ba mu naaj ñuy doog a jóg julli déedéet ëpp naa def ndax ci jeexatalu aay bi dañoo waxoon la laallakum tattaquun amaan na boo leen génnee ci weeru koor ngeen defaru te defaru bi nekkul lu du ragal yàlla kon yow mi doon yeewu ci fajar bi da nga di yeewu ci fajar bi xam ni fajar ba nga doon yeewu ci weeru koor moo fajar bi benn la yow mi doon naafila ci bëj ci guddig weeru koor weeru koor jeex na waaye naafila jeexul na nga continuer boo jullee gee ba pare nga continuer di naafila yow mi doon saraxe ci bëccëg weeru koor doon dimbalante na nga ndax weeru koor jeex na waaye bëccëg baa ngi fi ba léegi na nga continuer di saraxe yow mi nga xam ne yaa doon moytundiku tooñ sa mbokkum jullit nanga nga moytundiku loolu ndax bëccëg bi nga ko doon moytundikoo ak gudd bi nga doon moytundikoo tooñ guddi googu ak bëccëg boobu jeexu fi kon lu ñu bëgg a wax rek mooy jullit ba lam nekkoon doon ci góor-góorlu doon ci nab-nabi ci bëccëgu weeru koor ak guddi weeru koor na continuer di ko def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa buñ ko laajee lan mooy tuub mu ni tuub dafa war ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen mooy nag bañ a dellu ci safaan boo xam ne defoon nga ko maanaam nga defoon bàkkaar ba pare delluwaat ci bakkaar boobu nee boo ci delluwaatee lu muy tekki moom moo yow tuuboo kon tuuboon nañ ci weeru koor wi nañu continuer di tuub ndax weeru koor jeex na waaye weeru yàlla yaa ngi fi moo tax mu ni dafa war nag bàkkaar boo xam ni sa digganteek sa boroom la nga tuub jéggalu ñaan yàlla ne ko bàkkaar bii ma def maa ngi lay ñaan nga jéggal ma ko yàlla ne la ah yow sama jàmbi de loo ma ñaan ma may la ko jéggal naa la ko waaye bu ko defaat de nga toogaat ba si yàgg defaat ko yàlla ne la ba léegi espoir fi jéggalul ma jéggalu la nga jéggaluwaat mu jéggal la yàlla gafurun rahim ku mën a jéggale la ku na ku mën a baale la waaye nag bul bàyyee bul fàtte ni shadidul iqaab ku mën a duma la yal na ci yàlla musal su ko defee tuub bi na nekk tuub boo xam ni tuub bu dëggu la benn mag daf may wax ni doom tuub dëgg ci niñ la koy misaale ndax yéen ñi jàng téere yi di ngeen koy misaale noo xam ni soo leen ko misaale woon neneen mooy gën ma ne ko kom naka mu ni ma ku joggi xal nee na du ko si tegaat ma ne ko waaw loolu de lu wér peng la mu ne loolu mooy tuub nag mooy li nga defoon ci lu bon bu ko defaat bu ci delluwaat mukk ëpp naa def ndax di ko defaat di ko defaat dafay mel ni maa tey lay indi moo tax kon tuub mooy loo xam ni jullit bi bu ko defee boroomam na ko mettitlu waaye bu mu ci delluwaat ndax yàlla ku bari yërmande la waaye kuy baale la te bëgg na ndamit koo xam ne daf koy baal daf koy jéggalu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara da ngeen jéggalu seen borom ndax borom bi ku mën a baale la waaye nag loolu bàkkaar la bu dox sa diggante ak sa boroom bokkul ak bàkkaar bu dox sa diggante ak sa moroom boobu nag jar naa bàyyi xel ñu bari dinañ jéggalu bàkkaar boo xam ni dafa dox seen diggante ak seen boroom ndax dafa sew bàkkaar nit mën naa def bàkkaar te du yëg ni sax def na ko moo tax mu am yu mag am yu ndaw yàlla nee na nag yépp nag laay jéggale ba mu des bokkaale maanaam nga jël nit teg ko ci palaasu yàlla waaye bu dul loolu yàlla nee na bàkkaar yépp dama koy baale waaye mag bu dox sa diggante ak sa moroomu jaal man yàlla dama ci maandu kon nag yow jullit bi sa julli lu mu bëri bëri sa woor lumu mu bëri sa joxe azaka lu mu bari bari bëri say jëf yu baax lu mu bari bari bëri te boo toogee sa làmmiñ bi yaa ngi koy nekk di ko wax ci deru gor ñi mooy yaa ngi yàq jaamu yàlla bi ngay def fekkee foo toog rek di jëw yaa ngi yàq say julli yaa ngi yàq say woor su fekkee ni yaa ngi jël alalu jaambur yi mooy yaa ngi yàq say jaamu yàlla kon nit du jaamu yàlla ba pare wëlbatiku yàq jaamu yàlla nim koy yàqee mooy mën naa wax ci nit jaamu yàlla boobu dem mën naa jëf ci nit wala mu am yéene bu bon ci moom wala mu koy waxal loo xam ni waxu ko wala mu koy xas di ko ŋàññ su ko defee julli yooyu ngay def woor yooyu ngay def joxe azaka yooyu ngay def yaa ngi koy effacer te yëguloo ko te nag jullit bu nekk war naa mooy tundiku loolu sangu ba pare taqalaat sa bopp ëpp naa def sangu ba pare taqalaat sa bopp ëpp naa def te moom mooy génn ci weeru koor li nga amoon ci ay bàkkaar yëpp yàlla effacer la ko nga wëlbati ko taqaat rip danañ ci yàlla musal kon tuub jot na tuub jullit bi la ko war a def saa su nekk waaye dafa war a saxoo di ko def saa su nekk waaye mu war a góorgóorlu di jaamu borom bi subhaanahu wa taala moo tax yàlla di wax ci ay aaya yu fasantikoo du ñu ñaax ci ne jullit bi dafa war a tuub saa su nekk borom bi subhaanahu wa taala ne wa tuubu ila allahi jamian na ngeen tuub yéen jullit yi ci seen borom ci bàkkaar yoo xam ne yéen a ngi koy def mu waxaat ne yéen ñi nga xam ni yéen a gëm yàlla na ngeen tuub tuub boo xam ni tuub bu dëggu la waaw tuub bu dëggu la mu nekk tuub boo xam ni soo paree dangay ngay delluwaat ci li nga nekkoon jële nañ ci abi hurayra yal na yàlla gërëm ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dinaa jéggalul borom bi subhaanahu wa taala ci bis bi lu ëpp soixante dix fois xool leen yonent bi sallallahu wa sallam nga xam ni ah, borom bi subhaanahu wa taala goreel na ko ci lépp dugal na ko aljanna wax na ko anta minal mubashirina bil janna bokk nga ci ñi nga xam ne aljanna ngeen jëm te teewul yonent bi sallallahu alayhi wa bu guddi jotaan daawul woon nelaw waaw bu ñu waxee daawul woon nelaw nag mooy lu ëpp ci guddi gi da ko doon jaamu yàlla waaw te bu bëjëgee mu xëy dem liggéeyi moom yonent bi daan dimbali nit ñi te pourtant wax na ko ne aljanna nga jëm waaye teewul laka suñu yaay Aïcha radiallahu anha daan wax rek ne bu guddi jotaan yonent bi da daan naafila daan naafila daan jàng alquranul karim nee na damay dem ba sax dama koy yërëm day dem ba sax li mu lekkoon daanaka da ngay sentir ne ci yaram bi biir bi la fa nekk bariwul mu jël xeer jël kaalaam bi takk ko ci biir bi pour mën a am doole pour mën a taxaw julli waaw mu ne ko waaw yow mi yàlla yónni ndax yàlla waxu la ne ni jéggal na la say bàkkaar yépp yu njëkk ak yu mujj te aljanna nga war a dem mu ne ko afala akunu abdan shakura man de lii may def dama ko def rek pour sant yàlla waaw comme yonent bi moo am garantie boobu ñun amuñu garantie boobu de te yonent bi am na ko waaye teewul bis bu nekk istighfar daf koy def soixante-dix fois waaw astaghfirullah moom mooy saabu mooy omo mooy eau de javel boo xam ni su fekkee da bëgg yàlla effacer say bàkkaar moom ngay jëfandikoo saabu omo eau javel danañ ko utiliser ci fóot ay yére pour mu set waaye nag xol nekkul loo xam ni dañ koy jëfandikoo yooyu lii leeral xol lii tax sa xol bi muy dem ci yàlla saa su nekk yàlla effacer la say bàkkaar mooy ngay bari li ngay def istixfaar bari looy def istixfir istixfaar astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara sooy bari looy jéggalu sa borom yàlla def lay baal say bàkkaar kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañ ne jullit dafa war a def istixfaar mu ko lim nag def ko sabaina marra waaw mooy juróom ñaar fukki yoon moo xam da ngay wax astaghfirullah moo xam da ngay wax astaghfirullahu alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wala boog nga jàng sayidul istighfar boo ci mën a def baax na waaw ala kulli xaalin mooy nga wommatu jàkkaarloog sa borom won ko ne man jaam la boo xam ni dama laa tooñ ñaan la nga jéggal ma maa ngi lay jéggal nag waaye bis bu ma la jéggaloo ba pare ah ci li ma yëg ci loo xam ne du tayeef dootuma ko defati kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañ ne jullit dafa war a jéggalu boroomam subhaanahu wa taala ginnaaw bi nga xamee ni nag tuub nga yow jullit bi ci weeru koor tuub nga yaa ngi doon sentir li nga doon sentir sa bakkan bi ci weeru koor weeru koor jeex na li nga doon dund ci weeru koor moom ngay dund ba léegi parce que sa tuub bi dafa nekk tuub boo xam ni tawban tawbatan saalihan dafa nekk tuub boo xam ni tuub bu bu baax la waaye tawbatan nasuuxa tub boo xam ni bu dëggu la moo tax la nga doon santi ci weeru koor bi ngay jaamu yàlla bi ngay julli bi ngay woor bi ngay joxe azaka di dimbali nit ñi bi ngay naafile bi ngay jàng alquran bi weeru koor jotee loolu ngay sentir ba léegi mooy la nga doon def wàññi woo ci dara mooy yëg nga ni kon yow am nga lu ñuy tuddee at tawbatu mooy tuub wa hiya al ila allahi subhanahu wa taala beneen point bi mooy asabru mooy muñ jullit bi saa su nekk dafa war a muñ te weeru koor ñëw na nag jàngal ñu ne jullit bi dafa war a muñ ndax balaa ñu gaa dégg asalaatu xayru min an nawmi ci nga arrêté woon sa lekk lekkoo naanoo jaxasoo sa soxna wala jigéen joo xam ne takkoo ko ba timis di waaj a jot dog jot ngay doog a dog loolu bu nekkul muñ xaw ma lan la kon muñ boobu nga xam ni nag moom nga muñoon ba lekkoo ci bëccëgu weeru koor moom nga muñoon ba naanoo ci bëccëgu weeru koor nanga fexe nag weeru koor jeex na ah na nga muñ nag na nga muñ ci lépp loo xam ne naan la mu araam bul naan sàngara waaw ci weeru koor bu mu jotee da nga ne woon muñoon naa du ma naan sàngara te da nga doon naan wala du ma tox yi ñoll da nga ko doon jëfandikoo weeru koor jeex na da ngaa war a ne weeru koor na lam ma aaye woon aaye wu ma ko pour ma bañ a lekk bañ a naan de waaye daf ma aaye woon ne lu xaraam li ma doon def avant weeru koor bi di jot bu jeexee war naa ko bàyyi waaw ah, war naa kaa bàyyi war nga kaa mën muñ kon mu ngi jàngal weeru ko dafa ñëw pour jàngal ñu asabru mooy muñ moo borom bi subhaanahu wa taala ne ah, yaa ayyuha alladina amanu isbiru wa sabiru weeru koor jàngaloon ne la ne bul jaxasoog jigéen joo xam ne takkoo ko nga ne weeru koor bu jotee man damay tuub di sol ay yére yu jot macha allah bu dee jigéen ñi bu dee góor yi noonu yaa ngi sol sa simisu àllaaji yaa ngi sol sa xaftaan yaa ngi yor sa kurus weeru koor jeex na ah nga ne xaaral ma delluwaat ca nag la ma nekkoon nag xaaral ma delluwaat ci génn samedi ba nag xaaral ma continuer waat nekkaat ci demu buwaat baag def yeneen ak yeneen bu defee loolu dafay wane ni ba léegi yow la nga muñoon dafa amoon benn période rek moo taxoon nga koy muñ mooy weeru koor weeru koor jeex na delluwaat nga ci li nga nekkoon nag waroo cee delluwaat su fekkee ni muñ bi ngay wax lu dëggu la ci yow bi ngay muñ ci weeru koor moo tax mu ne isbiru muñ leen wa saabiru wa raabitu muñ bi dafa war a continuer waaw waru yam rek ci weeru koor moo tax mu ne wa raabitu hmm? isbiru wa saabiru wa raabitu muñ bi dafa war a am rabt bi nga jógee ci weeru koor rek weer wa ca topp wuñ wi muñ ba dafa wara a weer wa ca topp muñ bi dafa war a continuer ba at ba jeex ci la ñuy xamee ne nag yow mii muñ nga muñoon nga ci weeru koor doo jël alalu jàmbur dama ne weeru koor laa nekk du ma jël alalu jàmbur weeru koor jeex na na nga continuer bul jël alalu jàmbur bul sàccati sàcc baaxul bul sàcc alalu jàmbur kenn du ko sàcc soo bëggee alal da ngay ñàq liggéey waaw boo sàcc alalu jàmbur muñal parce que muñoon nga ko ci weeru koor ne du jël alalu jàmbur muñoon nga ci weeru koor ne du ma jël portable jàmbur te jël portable moo nekkoon sa métier bàyyil weeru koor jeex na da muñoon ne doo jël portable jàmbur weeru koor jeex na bul jëlati benn portable jàmbur bul sàcc te sàcc baaxul bul ànd jigéen ju la lewut muñoon nga ko ci weeru koor gi bu ko def de ah boo ko defee dafa mel ni mu ñoo woon waaw ah, aaya bi moo tax mu ne wa saabiru wa raabitu moo tax borom bi subhaanahu wa taala xam bi mu xam doomu aadama parce que moo ko bind moo tax mu ne wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juu wa naqsin min al amwali wal anfusi walsamarat waaye wa bassir alsabirin alladina isa asabatuhum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun saddaqa allahu alazim mu ne yéen ci jullit yi dinaa leen nattu léeg-léeg wala nabluwannakum dinaa leen natt ci lan bi shay'in min al xawfi wal juu léeg ma nattu leen ngeen ngeen dund benn insécurité jekki-jekki rek nga dégg ñu ne place tel am na kuñ fa rey place teel am na kuñ fa rey ngeen dund insécurité boobu nga jékki-jékki dund insécurité xiif xiif insécurité la waaw ci yàlla musal xiif yàlla nañ ci yàlla musal xiif baaxul nga jékki-jékki ñu ne faat nañ diw wala anfus hmm? wala agressé nañ diw jékki-jékki ñu ne ah nawet bi de moom ren baaxul amuñ li ñu bayoon amuñu ci dara samaraat waaye yàlla nee na wa basiri saabirine bégalal muñkat yi kon yàlla mu ngi bàyyi xel toujours muñ moo tax yonent bi ne a inda sadamati l ula mu ne buñ la tàggee ne la sa mbokkum dafa génn àdduna nee li nga war a njëkk a def mooy maîtriser sa bopp wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañ jóge te ci yàlla la ñuy dellu ci yàlla la jóge te ci yàlla la ñuy dellu bu defee muñ boobu muñ lañ koy tuddee waaye daanu xalangu jooy mbëkk lu ne nga def ko ba pare ñu naan la muñ nga ne waaye muñ naa muñoo da ngaa ñàkk pexe muñub ñàkk pexe ak muñ dëgg bokkuñ te jullit bi dafa war a muñ lu tax nga war a yow bi ngay ñëw ci àdduna lan nga indi dara doomu aadama bi muy ñëw ci àdduna lan la indi dara indi woo dara indi woo dara moo danga da nga judd rek ñu jël la leewula jël sër laxas la parce que am na partie yoo xam ne sa biir yaram bi warul feeñ moo lay wane ne bi ngay ñëw indi woo dara nga am fi kër am fi oto wala boog ma wax nga am fi ay kër am fi ay oto dem fi màkk takk fi soxna am ay tool am nangam am nangam am nangam waaw yàlla soxla la ne la sa mission jeex na ndax yow kat léeg-léeg bi ngay liggéey léeg-léeg ñu yóbbu la fenn mission mission ba neex lool am perjomi yu duun ya fa nekk doo bëgg mission ba jeex waaye dana jeex danga nga ñibbi yàlla ne la nag sa mission ci àdduna jeex na maa la waxoon ne soixante ans nga war a soixante ans yi jeex na doo ko passé virgule doo ko passé dama lay yóbbu waaye bi ngay dem yàlla may na la ay doom yoo fi bàyyi nga dem moo tax booy dem doo yóbbu dara doomu aadama bu faatoo du yóbbu dara lu dul boo xoolee sax ba ngay judd lañ la laxasoon lu mel noon moom lañ lay laxasaat perkaal melekaal nga xam ni mooy tisi bi gën a yombu ci tisi yi boo duggee ci marché bi kër yi nga fi amoon oto yi nga fi amoon soxna yi nga fi amoon doom yeeg ñëpp nga wan leen ginnaaw dem soo jiitalul woon sa bàmmeel koor gu yàlla nangu te nag yàlla moo xam koor gu bu nangu yàlla na nangu suñu koor boo jiitalul woon sa bàmmeel julli woor joxe azaka saraxa def lu baax dem fu baax wax fu baax wax lu baax ànd ak ñu baax loolu boo ko jiitalu woon sa biir bàmmeel day doy waar moo tax yonent bi sallallahu alayhi nee ñi nañu muñ ndax jullit bi dafa war a muñ bu neexee dafa war a muñ bu naqaree dafa war a muñ te yaakaar naa ne li ñuy muñ mooy loolu naqari waaw loolu naqari dañ koy muñ waaw mag ñi bu njëkk saan seen soxna danaan toggu ñam danaan toggu añ wala mu togg reer wala mu defar ndékki ndékki ba neexut añ ba xorom sa ëpp wala añ ba xorom sa manke waaye dañuy lekk ba pare defaraat ko ba mu jekk daal dina ko yow kat li nga togg neex na lool jey ko waaw dañoo mën sutura ay suñu jamono ji xale yi léegi bu ñu musee benn kudd wala ñu mus benn dànk suñ ko tubbee seen gémmañ bu amee xorom ñu manifester ko léegi wan la ko léegi kon gis nga àdduna lépp muñ la ñi beneen bi ci topp mooy asidq mooy wax dëgg si weeru koor bi da doon wax dëgg bëgg woon fen ku la wax nga ne ah man du ma fen de ci weeru koor laa nekk de weeru koor kenn du fen waa lan moo tax fen moom ñu yamale ko ci weeru koor rek te fen dafa garaaw waaw njaaloo lu muy garaaw garaaw fen a ko gën a garaaw te yal nañu yàlla musal ci fen ak fenkat maanaam fen tas na ñaari diggante yoo xam ni mburoog soow la woon ñaari couple yoo xam ne dañoo bëggante woon soppante di sëy te yàlla tax am ku ñëw fenal leen seen diggante yàqu ku nekk ci entreprise di liggéey am ku ko fenal ñu dàq ko ci entreprise bi waaye fen tas na dëkk bi te am na ñoo xam ne bu ñu fenul duñu am jàmm maanaam ñoom dafa am benn virus boo xam ne moo nekk seen yaram dafa nekk seen yaram maanaam moom foog ñu wax loo xam ne amul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wax lu amul lu garaaw la parce que boo jullee woor joxe azaka def lu baax yépp nga nekk fenkat ëllëg doo dugg doo dugg aljanna safara nga jëm fenkat safara la jëm te fen nag yàq na dëkk bi waaw waaw jullit buy dem bay wax na wax lu ko wóor bul bokk ci ñiy wax naan dégg naa dégg naa de eh mu koy dégg naa kay waaw nag bëril grand place day waral fen day jur fen koo gis muy bëri lu muy dem ci grand place di toog ay nit di waxtaan il faut mu muy fen di inventé wax loo xam ne li ngay wax dara amu ci dara wóoru la ci da yàq sa deru mbokkum jullit ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne iyaakum wa sidq maa ngi leen di dénk ngeen di wax dëgg ab jullit day wax dëgg loo amu lu la leer maandu ci bu ci wax mu ni fa inna sidqa ndax wax dëgg di illal birr day waral nga nekk nit ku baax wal birru yahdi ilal janna te boo baaxee aljanna mooy sa kër wa maa yazaalu rajulu yakzib wa yataharra yasduq wa yataharra sidqa xatta yuktaba inda allahi siddiqan mu ne nit kuy wax dëgg nee na loolu booy nekk jikkoom te day dem ba nit ñi dañ koy wax sa ah, diw de ku dëggu la eh, xamal looy wax si kanamam de kooku daa dëggu de ay fenkat ñëpp a lay yab booy commencé sax ñu commencé eh moom moom kay préparé li muy wax dara amu ci nañ ci yàlla musal mu ni nag wa iyyaakum maa ngi leen di moytandikuloo alkaziba fen nar kàcc wax lu dul dëgg mu ni fa inna alkaziba ndax fen yahdi ila alfujur wal fujuru yahdi ila annaar wa maa yazaalu rajulu yaksibu wa yataharra alkaziba xatta yuktaba inda allahi kazaaban mu ne maa ngi leen di moytu ndukuloo ngeen di fen ndax fen lu la yóbbu mooy dangay wax dangay ngay nekk bandi di wax naka sudul noonu nee na bu yàggee bandi ngay nekk nee nit kii na nga xam ni nag day fen nee fen mooy nekk jikkoom du dañ di fen di fen ba ñu bind ci téere jëfam ne kii fenkat la kii dañoo bind ci téere jëfam ne waqatu dëgg la aljana la jëm kii na ñu bind ci téere jëfam ne fenkat la safara la jëm kon jullit bi na moytandiku li nga xam ni moom mooy fen ne nekk jullit boo xam ni doom bi buy dem ba koy wax na ko wax ci wax joo xam ni wax ju dëggu la beneen bi mooy almuraqaba mooy fuglu sa bopp sa boroom lépp looy def bàyyi ci xel yàlla commerçant bi jaay na bàyyi xel ci yàlla ci li muy jaay bu dee peese na na mat bu dee jëflante nit ñi na ko teg ci yoon ndax kat lépp loo xam ni yaa ngi koy def di ko jëflanteeg sa mbokkum jullit ëllëg yàlla nee na dinaa ko dinaa ko saytuwaat moo tax nañu am muraqaba nit day am muraqaba muy lu yàlla bàyyi xel yàlla foo toll foo toll bàyyil xel yàlla waaw su fekkee ni da ngay bàyyi xel yàlla waxuma la dee du la bett de waaye bu lay bett du gaaw noonu ndax bis bu nekk da naan man kat est-ce fekkee suba waaye kuy kuy bàyyi xel noonu yàlla ndax dina def lu defuwul ndax dina wax lu wul ndax dina jëm fu jëmuwul déedéet parce que mu ngi bàyyi xel borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla wa huwa maakum ayna ma kuntum yàlla nee na foo nekk maa ngi ànd ak yéen waaw koo xam ne foo nekk mu ngi ànd ak yow fooy dem mu ngi ànd yow boo toogee boole naa la ñaari malaaka ñu lay surveiller raqib ak atid kenn ki sa ndeyjoor la nekk moo tudd raqib kenn ki nekk sa càmmoñ waaw maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atidun lépp looy wax kaddu booy wax na nga yëg ni am na ñaari malaaka yu nekk sa wet kenn ki raqib la tudd kenn ki soo tëddee kenn ki nekk sa bopp kenn ki nekk sa tànk soo génnee àdduna ñu dugal la ci biir bàmmeel yàlla na yéex am na ñu la fay xaar nakir ak munkir kon yow def lu baax rek moo la jik moo tax bàyyil xel yàlla nit lépp lu muy def bu bàyyi xel yàlla du lor mbokkum jullitam xataa keneen ku du julli sax doo ko lor yow muy jaay bul jaay lu baaxul léegi ngay gis jaaykat di waat yow jaay rek loo ci wat su baaxee waxal ne ko liikat dafa baax nangam lay jar bii nag am na bu ko gën a baax nangam ak nangam waaye déedéet nanga fexe mu jógee sa loxo rek nga defee ñu gën a góorgóorluwaat ah point biñ koy tudd tëjee nag mooy ragal yàlla borom bi subhaanahu wa taala nit fu mu nekk na ragal yàlla soo yow kese ragalal soo wéetali ko ragalal yàlla sooy liggéey ragalal yàlla bul ragal nit ragalal yàlla boo nekkee ci circulation bi di daawal yor sa oto ragalal yàlla lan moo tax ngay ragal policier bi yow daal pour nga jaar yoon moom fo pour nga jaar yoon respecter code de la route mooy da gis policier moo tax nga respecter code de la route soo gisul policier lu la neex ngay def waaw bu fekkee yow jullit nga ana sa ngëm yàlla ana sa ragal yàlla war ngaa bàyyi xel loolu maanaam nit du ragal nit ni moom dang koy jox cër waaye doo ko ragal ki ñuy ragal mooy borom bi subhaanahu wa taala soo ragalee yàlla say mbir day leer nañ yàlla nee na ku ma ragal ma booleeg la am ci ñoo xam ni buñ jàkkaarloog doomu aadama mu daw looloo lay ragal yow parce que da ragal yàlla moo tax yàlla ne yaa ayyuhallazina amanu ittaqullaha na ngeen ragal yàlla xaqa tuqaatihi gën dëgg-dëgg ragal yàlla wala tamutanna illa wa antum muslimun sa ragal yàlla boobu na nang ci mooy jàpp ci bul dee ci lu dul jeexalee ko ci ragal yàlla bul dee te lu dul ngëm yàlla jullit baat bu ñuy wax muslim wommatu ci yàlla yàlla may na la loolu loolu li la ko yàlla may yow yaa koy def yaay góorgóorlu ci loolu waaw mu ne yéen ñi ragal yàlla na ngeen wax wax ju dëgër te ngeen gëm ne nag yàlla mooy wërsëgale ku am yàllaa la jox ku ñàkk yàllaa la xañ bëriwaan na koo xam ne dafa bëgg a am yàlla xam ni bu amee du dugg aljanna mu xañ ko am-am bi jox am-am bu yama a moo tax booy ñaan na nga ñaan li may ñaan yàlla bu gënee ci man nanga ko dem bu gënul ci yow bu ma ko jox waaye forcé am-am ñaaree am de mu yóbbu la wala nga dem waaw nga bàyyi ko fi nga bàyyi fi am-am bi waaw nga fi bàyyi am-am bi la force am-am da ko fi bàyyi rek kon nañu gën a gëmaat yàlla gën a toppaat yàlla xam ni weeru koor jeex na waaye jaamu yàlla jeexul weeru koor jeex na waaye jaamu yàlla jeexul julli jeexul woor jeexul joxe azaka jeexul dimbalante jeexul wax lu baax jeexul def lu baax jeexul dem fu baax jeexul ànd ak ñu baax jeexuñu yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama technicien bi di Xaaji Mor Diallo di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ko taysir di nuyu Xaaji Fattah Sarr di ko jaajëfal ju baax gis nañ taxawaay bi ay Xaaji Makhtar Sarr di nuyu asatise yi nekk ci groupe yëpp di Nabi TV di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfir min kulli zanbin salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu